wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli coonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ndokkeel mbooloo mi di leen jaar di wàccee kenn ku nekk ci ñun wàccuwaayam ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaan ci jataay bi ñu ngi jiital ci ndokkeel gi ak ziyaar bi ki nga xam ne mooy jëmmi jataay bi di sunu sëriñ Maolana Sang Barhaamu Njaay ñu ngi koy ndokkeel ci liggéeyam bu rafet ndax mun munaasaba bii ñu ñëw muy gàmmu lii rek moo ñu fi andi jaami yàlla yi fi jaar téewoon micro bii di jàllale xam-xam ñu ngi doon wax lenn ci xam-xam bu rëy bi nga xam ne mu ngi balle ci moom te loolu ku teew ci jataay bi xam nga ci dara li baay doon taggee yonentu bi ne ci moom la yonentu yi ak xutbu yi gëlëm waaye ci moom la ñuy gindeekoo waaye nee na ñoom ñëpp ñëw nañ ci géej yonent bi laal ba doyal dem géej gi mu mel ni dara laal waaye ku ne xam na ne xam bi fi tuuru boo ko yóbbu feneen li jaase ubbee li tuubaay wax li saw mi wax yow mi fi toog ba pare di xaar keneen ku leen ëpp jëlal ci seen wax yi tuuti bu fekkee mënoo ko maîtriser nga laaj ko enregistré audio bi mu jox ko nga dem ak moom feneen di nga wër àdduna bam dat doo gis ku jox gëdd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni jaay joxee gëdd bi loolu ñu ci ciy ndokkeel Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass pour mu leer àdduna bi yëpp xam ne Baye moo jël coupe baay gis nga lam doon wax naan tazakartu wa zikra tukadiru liyal ay fi hadratil oliya <laughs> gis nga baay yàgg na bàkku waaye gis nga bàkku yi baay noon bàkku bisang baraan njaay la leer am na koo xam ne man naa jël bàkku yi yóbbu ko feneen waaye boo baree joxol keneen micro bi mu bàkku comme nam bàkkoo waaye bàyyi day fàttaliku di fàttali nit ñi loo xam ne ngay ne su ma koy fàttaliku day nëgal sama dund gi samay guddi bu quartier yi dajee ci xadatul xoliya fan mooy xadatul xoliya ñun xam nañ ne piib yàlla bi dajee na xadatul xoliya bàyyi ne ne foofu buñ fa dajee yu xaadiroon yi dana ma dikkal fidiyaanu fidiyaanu ma nañ gàmmu يهادرني فديان xanaa bokk nañ ci fidaanu sidiqin yuhaadiruni fidaanu bàyyi ko doon wax ne démb fidaanu sidiqin qad axlasu ila llahi loolu benn affaire la ñooñu ci digg-digg ñoom ñoo sell ci yàlla xastan lan namatu walan ñooñu dund teew ma ne fan la toog ba am ñu ko dikkal te tunduñ teew sang Njaay fii la feeñ fii ne ca kaw muy ca asamaan te am na ku fay dee bu weeri deewu toon weeru weeru gàmmu du teeru du dëgg kon am na kuy dee ca kaw ci suuf si am na ku fiy dee garab duy dee waaye diggu ngelaw dee na waaye garab day dee ci suuf si weer day dee ca kaw kooku moom toujours day dee moo tax sang bi ne gis nga gàmmu gi yi ñuy gàmmu nag ñun suñ gàmmu boo gisee yooyu noonu tubbi ñun fii lañ ko mën a taggee mooy yoon tubbi ku koy tagg te boole ala oo ci sa tëm bi du ko jël moo tax mu ne bu leen julli ci man julli ku nag salaatul batara booy taggee yonent bi taggoo Seex Tijaan yonent bi lay bañ julli ku dagg mooy nge tagg yonent bi ba bi Seex Tijaan ba fi bàyyi تتقوي بالله بوين دمبلو نيني با ياغتي دا ناي خامنا گامو دگ لا اه يو گامو لو في في عبد النبي كيب كو في دگ گامو لو في گامو گامو مول في اندي عبد النبي كو في دگ گامو لو في بالله لا اله الا الله باي دا فو خمو ني اولو تجلي من الحق برت يسري الى سوجود الانسان من فسم سر الله يصاب picc li bi yàlla njëkk a def ñu ngi koy xamee mu ngi fenkee ci sëy góor ak jigéen mu ne foofu mbóota nga fa moo xam ne kenn du ko tudd waaw kan mooy góor gi ak kan mooy jigéen gi ki njëkk a def ne mooy góor bàyyi daf ne am na bàyyi demal ci laxar rab yo wasaahat anniyal kurubu wahaaja taskaaru man hallal lahu rutubu لا ربي وزاد عني الكرم وهدي تسكر من على النور باغي دير ويرو غام مو فاغن سما نجاخاري دم ناي جيكي نا سي سما خول بي ما فاتلك كيغا خامني مرتبه يي موي درجه يي ci moom lañ yëkkati ko te mooy Seydina Muhammad lu mu ca teg hibbin basiru nasiru mustafa abu abil qalaiqi man dalat bihi sama soppe bi basiir yi lasiir moom mooy bigle du xuppe wa abu abul xalaa'iqi baa ngi dene yonent bi mooy bàyyi bàyyi mi ndeefi bàyyi mi ndaa foon yi mu yonent Yàlla Muhammad aadama ci boppam bàyyi ngees nee na bàyyam mooy Seydina Muhammad waaye bu waxee loolu léegi kan moo yaayam nga loolu mooy problème bi sàng bi daf ne yàlla bu fekkee daf ne fa liyansuru l insaana mimma nit ku nekk na xool niñ ko bindee waaye nit ñi ki ci jëkk kan la ne la aadama bu ngeen nelawee rek man ma nelaw 30 minutes bëriwul nañ waxtaan rek nag fal yaltul insaan min ma mu nit ki na xool niñ ko bindee xuliqa min maa in daafiq yaxruju min may ni sul bi waa innahu ala layi la qaadir na yowma tubla nit na xool niñ ko bindee nit ku njëkk ki mooy aadama bàyyi na am na bàyyi te bàyyi nga yàlla nee ku judd yaa ngi juddoo ci ndox muy jañu di tukkee ci diggal góor di dem ci déedéet baati jigéen waaw Adama gis nga góor gi mooy Seydina Muhammad jigéen ji kan la gis nga góor gi mooy Seydina Muhammad waaye jigéen ji kan la kooku mooy jigéen xaqiqa ci kooku rek la ñuy xambee Cheikh Tidiane billaahi ci laa ci moom na ñuy xambee moo tax li Sanga Ñaay di jàngale ba buuf tabi wal moo def Sanga Ñaay nee na Cheikh Tidiane xam nga lu tax mënoo ko mooy boo ne bu ñu ne diw kenn na àdduna rek ñu ne nañ gasaal seex na na ñëw bu ñëwee ma démonté seex Tijaani moo la doon monté ci sa biir yaay waaye moo lay démonté ci biir bàmmeel sa biir yaay ka la fa doon monté mooy seex Tijaani waaye sa biir bàmmeel ka lay démonté mooy seexu Tijaani kooku ci gàmmu kel la إنه هو على رجله القادر ولم تدعموا ينون تكسر تدان فين تدعموا يتبعين يوم تبلا ما في مبودي فيني فو فان لا ما تفيجي ديك نيوا أصل تبلا التي لا إله إلا هو نتي أصل يي أصل بين كم تنيمون كوا مو كتير نون أصلات

بك الناس كل الناس يهدى ويفرد yonent bi ñu ànd ak ñu gàmm ci gàmm kii ba mooy am booba asalaam nooruhu awwalul wujuudi wujuudaat fa huwa aslul usuli wa maa addaali aslul usuli aslul usuli walal jaw da nga jaay mi mën naa jàngale waye tagal nañu taawinatul xel yi ñun muus nañ legi aslul usuli aslul usuli wal ciosani ciosani ki cosaan bu njëkk bi du moy mooy moy jëm yàlla fofu baye la aslu asal Cheikh Tidiane la asal asalu asal mooy yonent Yàlla Muhammad wahid ya sen cosaan ñom kan la aslul usuul yi mooy cosaani baay lu tax ñuy baay tàng bi leen xaqatul muhammadiya ak yonent bi ñoo seen yu juddu xaqatul ahmadiya seeg satiaan yaram juddu xaqatul xilaafa seeg baay xol na koo xam ne mooy cosaani baay bi ak satiaan ak baay ak seen doom yi mooy ruux yi ak yaram yi ak xol yi koo kan la فأراروا أصل الأصول وأصلنا وأصلنا من دينه ومياهه لم ينزع متاهدون يوم biddiw <laughs> bi du fenk weeru du fenk jant bi du fenk biddiw bi mu ne yonent bi weer yi mu ne seetkat la jant bi mu ne bàyyi la bu taxatoon la yow yow kan yow kan yow kan fala eh, wala wallahu la tulfi layadan wa innaha la basratu hadhihi al-kawn bi iskan mursala taxul kenn di judd mooy judd gi bàyyi ji ci la bokk bàyyi ji ci judd gi la ci judd gi la bokk xamb bi ci judd gi la bokk waaye kii judd bu taxul doon moom kenn di judd parce que moom moo nekkoon ci bàyyi tuxu moo tax bàyyi ne lam yesal wàññi nga da nga koo wàññi lam yesal mu rawa bi ilahi fi الحسن كان في الكون ما وانتقامي يزال نوره في حي الله لارجي ني فتاجل نون ني لارجي ما تدج نيك دي تيم يالله في انتقال الكون بعدا لارجو مو دون توبتي كون بي ار بو تو رك تو دا دون تو رك لارجو مو في نيو لارجو لا باير نوح يونت بي نانكو ونوره قد نوارا افق البلاد ابصرا في الهين قصر قيصر من اجله المنكتفه ونوره قد نوارا وفق البلاد أبصرا في الهين قصر قيصرا من أجله منتصرا لا رم بين سنين قد تدق دق نوارا مولر الأفق البلادي غوخي ريوي بقى قمينا يونت بمتوتو أبو سارت لنجس في الهين سساسا وبصرى له فياز والجمال قد تبدت انواره وانارت افق بصرى له فياز والجمال صلى الله عليه وسلم باينه باينه باينه xam nga xam nga xam nga li problème bi nga am ak wéykat yi xam nga li problème bi nga am ak wéykat yi maa waa ji muy tagg ak wéy xam nga li problème mu tagg ak wéy sànq dama wax kii Abdou Thiam ma ne ko adduna bii li fi xew leeral na ñëpp dafa am foo xam ne boo ko fekkee wut waroo expliquer mu leer mu fekkee asal fekkul la waroo expliquer du dëgg parce que yow allo Mbaga bàyyil ma bii waaye ma xëggal ma duuf yàgg ma ne xam nga ñun ci réew mi la nekk fii Sénégal léeg-léeg nga gis nga nii bongo maa ni ñëw ci xew bu njëkk see xam nga ne yow dañ la kuy xew fii ma ko diw mu ne nu nga ne diw ñaareel la wala aaw nga ne ñaareel rek am am na information ñaareel ñaareel ay diw sàngam ñaareel ah <laughs> tegaale ci xarit jëkkëram mais kooku looree la xam ci waa ji amu ci benn information bëri na ku lay nettali ci yonent bi barki rasulullah bungu maa la rek مرا مرا بعد ما يقول لك هللوني بمدحه وانظره نصر مد الأمير نصر النقالي وانصره نصر مد الأمير نصر المخالي أم غير أم لا موي باب أمير دايم ما كلا جدو أنا بس دايم ونامبال فلا قاعد دايم مير يا يقام أم غلي لي منو نايم baay def ne baaru leen ma ba tagg Seydina Muhammad haliluuyu bi batihi wan tur yi gaa yi tagg nii kenn taggloowu leen xam nga lu tax dafa lu ñu lay laaj ci yonent bi ñas di ko leeral ndax bu ñu ko waxee da nga ko xam barasat hadaratu taaha qabla takwinil makaani ndax mën nga koo leeral barasat hadaratu taaha benn place bu mu barasat hadratu taaha qabla takwinil makaani pays bi feeñ na te mënoo wax ne fii la ne booba place amut ndax kooku yow mën nga koo tàggee bàyyi ki nga xam ne ba mu koy bëgg booba place ak barab amagul mooy zamaan ak makaan amagul moo ko mën a nettali bàyyi ne wallahu homrun tawilun qabla taqdiri wallahu homrun tawilun jël di bind ci yonent bi su boobaa ñaari jëmm dana taxaw te yàlla yonent ku leen def ñaar dem safara yii fiir nga yàlla yonent wallaahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu li li lii alquran la yàlla ak yonentam bi moo gën a eey pour nga gërëm ko kon yàlla ak yonentu du ñaar waaye nu nekkee kenn sang bi nee na gis nga gis nga ñun lii ñu gëm nii bëri na sax ñoo xam ne boo demoon ci benn fii loolu lañ gëm mooy dañoo gëm yàlla nii la nekk yonent bi nii Cheikh Tidiane nii Baye Niass nii moo tax boo duggee keneen ñu ne du bokk bandi rek mais bu nekkoon nii yow boo ko gëmee dem safara yàlla nii yonent bi nii Cheikh Tidiane nii Baye Niass nii lii boo ko gëmee dem safara waaye da nga yëg ne da dem yow Sani Ndiaye dana la tàggat ba nga xam ne su ma nee micro dugal naa yàlla su la joxee ni mel dugal naa yonent Yàlla Muhammad su ma la joxee tur wi dugal naa Cheikh Tidiane su ma la joxee jëmm ji dugal naa Baye waaye su ma ci kàddoo ba nga dégg ko Sani Ndiaye dugal lii mën naa taqale ko micro bi lii benn jëmm la. ñi ko amul nag dañoo jàpp ne Seydina Mohamed dafa nekk Makka yow nga nekk fii senegal boo gisee ku koy feetal nga di ko inkaar yonent bi moo toog ca Makka ne laa yuusiku ahadukum bi sawkati ilaa wajjatu allama ku dégg jam foo ma ne yëg naa métti yonent ne ne bu la dégg jamee foo mën a ne ca alam bi man yëg naa métti kooku ni mu la jegee buñ la ko wanoon buñ koy màggal nga nangu ki nga lii métti ci yow moo la ko gën a mën a moo tax bàyyi ne simaalul baraaya ahmadu حبه فرد سيوق الأداء أو سؤال سا وقد هدو وير من أفون موسى سيدنا محمد بقوكو فرطلا قامو فرطلا بقى سبب بقى كي أمي كوكو بقول يا الله دولو بقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يغبكم فاتبعوني يونتو نه يالا موكو يالا موكو نه وقال نه قل وقال غاي نالن ان كنتم تحبون الله فتبعون يحبكم بون بغي يالا بغي لن نان ما توب نان لا توب ياو بور يالا بغي لن ياو مان غا دم يالا بغي لا تدو اند سيدنا محمد يا خما كون لي يالا موتاخ سانغ بيني فالا دي وخني امنا اي يو خامني بو يبو غاي جيني كو تي القران دي بون بغي ميني تي سيدنا محمد بو جانغي القران با فك يالا دي وخني النبي awlaa bil muminina min yonent bi moo gën a xëy képp ku gëm yàlla ci sa bopp loolu boo incaré yonent bi génneeku boo incaré gàmmu génnee loolu waaye bàyyi moom daf ne xasim habibi xasim baa nges nee na yow mi nga xam ne xam nga li ñuy wax ci yonent bi xam ni ci yow xam mooy kan yàlla wàcc ci minaa foo ni bu mu la màggalal sama soppe bi yow mi màggal ko mawlidal muhazzami tuddu ki nga xam ne Baay Ñas nee na lu màgg ci xaalam bi ci màggaayam ji la ko jëlee demal fa inna man lam yukrimu Baay Ñas nee na képp ko xam ne tereloo juddub yonent sallallahu alayhi wa sallam mawlidahu faqad jafa yow yaay ki beccangal yonent bi boo jàppee ne jullit nga hit dokkatoo jullit. wa man yuhassimhu yanal. képp ku ko màggal nag foo mën a nekk koo mën a doon da nga fa xamee. karaamatan wala yubal. ay teraanga yoo xam ne ci yàlla la jógee ñëw ci yow parce que yonent bi moom la yàlla gërëm boo boo am ngërmande ci moom am ngërmande yàlla kon boo ko màggalee ba am ci ay karaama bul faaleeti. in kaana jaahilil hasal benn waay bu taxaw ci télé naan gàmmu bi daala bul ko faaleet fa innahu qad xanafa Baay Ñas nee maa ngi lay gëñal ne kooku dafa jeng walis njub bandi la dafa jeng wa kullu man Baay Ñas nee na bis bu ñuy def gàmmu ñu ne mbooloo maa ngi dajee di gàmmu nga ñëw toog sa jotaay ba كأنه قد صبر yow waxuma sax ay julli waxuma dara waaye yaa ngi mel ni ñi teewoon barab nga xam ne yàlla jéggal na leen luñ defati baax bi yawmi badrin wa yuraa mulku nee na nag ëllëg dinaa la gisee nguur gu sell goo xam ne yàlla la koy may te du la ko mayee ci dara lu ci dara jay gàmm demal mu ne rawatina nag kuy gàmmu comme ni maay def nii gars yi di ma jox junne nga ciy joxe sa junne maalan wajaa musiqa kasal la si kasal la si pareegu kasal la si kasal la si qad anfaqa dina waaji di gàmm nit ñi di ko jox junne mu lay xool nga koy ree te pareewoo koo jox junne yaa ko gën a xam maalan wajaa musiqa mu ne waaji mu ngi joxe junne bi waaye fekk mu ngi bëgg junne bi junne bi nga leen ci sa bopp bi loo ko bëgg bëgg kasal la si kasal la si qad anfaqa <laughs> 30 minutes ba jeex la kasal la si waxal kasal la si waxal kasal la si fii laa koy dugal waxal kasal la si kasal la si am faqa waaye dundale leen ci Seydina Mouhamed maalam wajaa musiqa la fekk booba yaa ngi féex. ci sa xol innahu baqa. mu ne yaa ngi mel ni ku desoon. yawma hunaynin wa kafa. xarab hunayni na fa saaba yi tëddee woon des fa bi nga fanaane ci gàmm yaa ngi mel ni noonu nga noonu nga mel demal. kasal la si qad anfaqa. mu xam lu ñëw foofu ngir ngeen mën a woy. kasal la si qad anfaqa. kasal la كذا الذي قد أنفقا kooku mooy jëmmi teraanga moo ñu may li xam ni Seydina Muhammad maalan wajaa musiqa kooku jar na lu ne fa innahu kaman baqa yow faran ci gàmm rek mel ni ku teewoon ci xar yow ma hunayni wal kafa yow nga boo xeej nga boo fetal nga boo jaasi nga boo dara da ngaa reer suur laal sa parfum sol sa yére yu rafet ñëw fii ñu jox la micro ngay waxtaan ci yonent bi sa poos di duuf benn waaye toog fële di ko jéem a inkaar loo koy wax kësal la si. kësal la si qad anfaqa. lu mel ni yonent yàlla Muhammad yaa ko mës a gis. maalan wajaa musiqa. ngay toog a saalal fekk yaa ngi ko bëgg yéen a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fa innahu qad anfaqa. bàyyi ma war bàyyi ma yemale ko fii. yawma hunaynin wa kafaa. de cinq minutes. Ah, xam naa xam naa sama gars yi <laughs> kontaan naa ci yéen nag waaye gis nga gis nga lii lii feeñal taaru Seydina Muhammad la ñun am nañ muraado ñun am nañ muraado jógee Dakar dugg ci oto di ñëw fii risque la am na koo xam ne ci diggante Dakar ak Kaolack la dee du dëgg tëj sa kër bàyyi li nga doon def ñëw toog fii risque la waaye dafa am koo xam ne moo ihaata ñëpp ki bàyyi naan waqat lama nuurul muhiitu li kaw ni na melxatti na ne leer gi nga xam ne moo peeg suñu nekk gi muy leer Seydina Muhammad bàyyi na ne leer googu li kulli makaanin mu ngi ci bépp barab waqat lama nuurul muhiitu li kaw ni na fi kulli makaanin man mu ne leer gi am na kuñ ci waaye am na kuñ ci toroxal leer googu am na ñoo xam ne teral nañ leen ci waaye am na ñoo xam ne ci lañ toroxee ku ne xam ne leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo daj àdduna kàpp loo gis leeram gi yow lu tax bëggoo nekk mbaam te lépp di leeram gi mooy mbaam da ko mbaam da ko fii képp ku fi gis mu génn melaw rafet wii mu mela Seydina Muhammad bañoon di ma ko yàlla boo ko bañee du la tëj kaso yàlla soo ko bañee rek du la tëj kaso dalay xaaree yonent bi bàyyi moo ne iblis si boppam li ko dàq waral ko texaati moo képp ko topp mooy gis leer yonent bi bañ koo sujjóot ñun nag dañoo gis leer Seydina Muhammad nanga koo sujjóot malaaka yi leneen yàlla may ba ne sax bu ma doon tànn yonent ko indi ci yéen bu ma doon tànn malaaka da ko indi ci yéen yàlla buy jël example rek def na ko Omar ñaan nee na yàlla bu demee ba naan su ma doon jël malaake di ko wàccee ci yéen di ko def yonentu dama koy solol li ngeen di sol te dinaa nit laa koy def mu ne bu ko yàlla waxee rek jàppal ne jàpp ne ca malaaka kenn ba wàccee ko fii def ko nit yónni ko bu ko yàlla lu muy léebee dëgg la dafa am ku doon wax di tarxiis naan yàlla léeg-léeg day léeb léeb yoo xam ne amul yàlla lum léeb am na dafa tarxiis yàlla lum léeb rek am na waaye nam ko léebee nga dul mën a dégg waaye ñun ñu ci satt sanga ba xaamu njaay moom mi nga xam ne jaam yàlla yi toog fii tey ci gàmmu amul kenn kuy ñibbi loolu sa mbëggeel ci Seydina Muhammad dana yokk waaw ko xam ne nag soo ko bëggee danga nga texe soo ko bëggee yàlla bëgg soo ko bëggee am teraanga aduna àllaaxira ñuy mooñ sa xol bi di ko ci dugal ba nga bëgg nga dem mam yàgg nga jëlee fi lépp saxal fi xam ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñu lay defal lii am ku toog fee di indi ay aaya ma benn aaya rek ma tëj waaw inna laa ina laa wa malaykatu waa ji mu ne gars yi ñoom benn lay boobu rek yàq loolu doy na lay loolu doy na lay yàlla ak malaakaam yi di julli kan la ñuy jullil Seydina Muhammad ndax sa baay am na loolu est que du fa nga ko xañaanee rek yàlla mi ngay làqatu fi mu ne man julli naa ci yonent bi dama julli ci moom ne ku gëm yàlla julli ci Seydina Muhammad ndax sa am na loolu est-ce que du da ngaa bànde añaan moo leen jàpp ñu ngi fii ñu ci bëri ñu ngi ci biir réew mi kilifa yii nga xam ne liggéeyal Seydina Muhammad moo leen may li am loolu lañ añaan tey tey jii xaalam bu islam bi ñëpp laa amul fu jullit nekk lu dul boo génnoon ci mbedd mit na bàyyi da nga dajak kenn ci ñoom lu ko fi indi leeru Seydina Muhammad gi bàyyi doon tasaare ci alam moo ñu fi indi raw du bàyyi bee ay jullit ñoo koy sukku ay borom xam-xam di fa sukku di ko di ko dagaan ay ñaan di tëbbuwu ci moom ngir lu tax lim ne wa lim laa wa xëy nii yow ma xëy nu muhammad sarrafiruhu fi haykali waruwaay ndax kooku koo xam ne sa ibrahima war naa nekk ci sa taalube war naa nekk ci sa jaam war na laa wéy ba dee war na laa gëm tàggat di la xamal jaam yàlla yow nga judd fii fii nga juddu ci senegal bi bàyyi di samp fii sa bàyyi nga fi woon bi baa ñee samp di fi képp kuy wétti gàmmu bi baa ñee di fi sa bàyyi fa waxu coo sëriñ ba nga yaakaar mu ngi fi woon moo dem ñu gemb la waaye réew moomu ba nañ la fa ñëw ci baay da ngaa bon te mën a inkaar rek waaye billahi la si laay laay laa wa gàmmu dëgg laay doon ba ilaa yow mi dini kenn du ko mën a jële ñun de ñun danañ gàmm ñun danañ gàmm ku ci bañ nag ren bu dee ne da nga nekk nag ñu gàmmoo la ah ñun bëgg nañ jëre ay nag ci ñi ciy kuy ci ñoom ñi ci gën a kuy ay gëlëm lañ leen def ñi leen topp di leen ñu def leen ay nag ñi ci am xam-xam ñu def leen ay xar ñi ci sob di yundoo ñu def leen ay bëy ñi ci yoloosi yoloosi ñu def leen ay ganaar